ci jërëjëf euh, Abdoulaye Diop euh, passe partout maa ngi lay nuyu Yacine Pouy namoon naa la auditeur rek euh, internautes yi nga xam ne nu ngi ñuy bàyyi xel ci la rajo leader RFM 94 point 0 yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg Mamadou Ndoye Bane borom élément yu gudd yi te Abdoulaye Diop di ko bañ ànd ceeg nga xam ni moom mooy le journaliste noble Mamadou Mohamed Ndiaye sama waa ji Bane maa ngi lay ziar. maa ngi lay bëggee maa ngi lay ziar bu di ziar Ndiaye jàmm rek yal na yàlla def jàmm jàmm ñi bëgg jàmm yal na may jàmm ñi bëggul jàmm yàlla na may jàmm forcé leen jàmm ñi ba nga xam ne fu nu tourné jàmm la daj. baan li nga bëgg ci pire yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal dama laa géntal mais du ma ci wax faaw ma def li ma war a def ba noppi doog laa wax li nga xam ni moom laa gént Ndiaye maa ngi lay siyaar. c'est le candidat du social. <laughs> pare naa pour doon sa directeur de campagne. moom mi waaw. Ah ah, chargé de com. il est social chargé de propagande yow la bëgg waaw waaw yéen waaye waaye man maa leen wax man candidat la. force yow loolu mënatoo koo bañ. moom kay la la bàyyi laa daan wax rek. Mm. xelu dem baa xelu dem rek. Mm. <laughs> waaw xelu dem nekk candidat ba xelu nekk candidat rek. man de waxaguma. ah ah baax na Ababacar maa ngi lay siyaar ba maa ngi lay delloo siyaar bu baax. alhamdulilah. mbaa yëpp a ngi dox waaw maa ngi sant wér a wér kay. ana partenaires yi. partenaires yi nañu tàmbalee ak euh, waa Wave. waaw Wave ñi nga xamante ne ji ñoom li ñuy wax mooy sa xaalis yaay borom. Mhm. yemuñu ca ndax nee na ñu ndimbal jaboot la. Wave dafay liggéey ngir ku nekk mën a jot ci service am financier yu am solo yi ak nu sa am am man di toll loolu lañuy ñuy wax euh, inclusion financière te loolu moo tax a jóg Wave oyofal sa dund oyofal dundinu askan wi ndax retrait euh, wala wala envoi nga koy def te doo ci fay dara daanaka. Euh, un pour cent ngay fay ci ci ci li ngay li ngay transféré junni boo yónnee fukki dërëm ngay fay ci frais loolu Wave moo ko def mhm. yemul foofu ndax ñi nga xamante ne ji seen i téléphone mhm. mënul di installé yenn application yi Wave da jox carte boo xam ne boo ko yoree mhm. lu am ci service Wave yi rek mën nga ko mën nga ko mën nga ko jëfandikoo ñuy wax nag ne par exemple lu aju ci wàllu sécurité ak garantie ak qualité ñoo ci dox ba tax na sax dañuy wax ak askan ñu ne euh, Wave wala sa ay code secret wala information jëm ci mhm. yooyu weef xamal ne Wave yónni wu ko teyit laalewul ci Wave mm-hmm. beneen partenaire bu ñu àndal ci xalaas mooy Optique Vision Plus Sénégal nga xamante ne ji ñoom li ñu wax mooy lunette partout et pour tous ay lunettes yu yomb te garantie mais ñu koy def ak social bu mat sëkk mm-hmm. euh, am na fii ci xalaas ñoo xamante ne ji fii la ñu jaar ñu yëkkati ay lunettes Optique Vision Plus Sénégal may leen ko ndax social bi ñuy dox ñu bari wala te yemuñu rekk ci ay lunettes médicales même accessoire lunette boo bëgg boo demee Optique Plus Sénégal di nga ko fa am ay perce original ak traitement X ay monture marque yi gën a kawe ñoom original bi lañ lay jaay Optic Vision Plus Sénégal mën naa ne daanaka ñu ngi fépp ci réew mi ndax am nañu boutique euh, showroom bi fii ci Cypress 2 mhm. mais également am nañu boutique Mbour mi ngi sa Sali Carrefour ubbi nañu boutique bu bees tàq fële ca Kër Mbay Fall Optique Vision Plus Sénégal 33 824 54 57 77 479 63 38 établissement waa kër Serigne Touba Fall frère fa laay yemagum pour le moment ñi nga xamante ne ñoo ñu indil la gaamu vite fait bi gaan bi noppal waa réew mi ci jamonoy nawet bii mais également bu ñu ci pareet jamono boo mën di doon booy ànd ak gaamu vite fait sa dund dafay gën a neex day gën a yomb ku ne xam na ne jamono ji période yoo la am na cuuraay boo xamante ne ji vite fait la ñu ko tuddee da koy taal mhm. yooyu di la sori ba pare xet bu neex la lay bàyyi boo ko xasee ba taal soxla woo ñoom mutti nag mi ngi noonu Moustapha mm-hmm. Fall exactement ñu teg ci pompe aajul ngay takk moustiquaire déedéet déedéet déedéet mais mm. xam nga moustiquaire nag mm. ay kii maanaam euh, consigne les autorités de médicale la man bi ma ko pompé mm. waaw nga jékki-jékki yow mu tin mi ni ma am nga sens waaw ñoom mutti na fi jaar <laughs> yow moo la wax mais nag du ñuy takkaloo ñëpp mu sikeer mm-hmm. dute <laughs> oh, xam nga mën ngaa taal mën nga taal cuuraay bi mm-hmm. mu dàq yoo mm-hmm. waaye xam nga cuuraay bi euh, ñaara mën a bu jeexee nga jug taalaat par contre mu sikeer moom dañu koy digal nit ñi guddi gi yëpp voilà fu ñu mën di nekk xam nga mën ngaa sol dàll ki sa génn mais bu ci kawas àndee ca ngay gën a a nooy mi ngi noonu moo tax mu sikeer moom luñ leen mën di wax ne day dàq yoo bu ngeen ko dee jëfandikoo bu mu tey ngeen takk mu sikeer loolu dama koy wax en tout ñuy tëdd di nelaw suñu xel dal. bu ñu yeewoo ba xëy. waaw suñu gémmiñ xeeñ neex. xam nga lu tax ñu génn mën a suñu soxla. pâte dentifrice vite ah, fait foofu laa jëmoon. Ah. ci frotté bi. Mhm. mais pâte dentifrice vite fait bi nga xamante ne ji dafay sàmm sa ay bëñ di ko weexal mais également ñu boole ko brosse à dents bu mucc ayib. Mhm. nga xamante ne ji souple dur wala médium boo ci bëgg format boo ci bëgg. Mhm. mi ngi ci gàmmu vite fait bi. 33 77 555 11 11 77 696 34 67 wala 77 441 06 38. établissement waa Kër Serigne Touba euh, Fall et kontaan nañ ci suñuy partenaire ñi nga xam ne Ndeye Sow mii nee na Ndoye Bane le plus beau du monde. ah eh. am na fi junni. am na ku ma gis mu bind Bane ak Pire comme Mburoog Sow. Ah, waaw loolu moom dëgg la waaw waaw am na loolu moom. am na ku ma gis mu bind ko. waaye nan dem ci xalaas gi. tarkalla ban moom heure boo xëyee. am nga ci plateau bi cinq minutes de campagne. de ah <laughs> ah sa directeur campagne a ngi nii. charge di ruubeeg nii. waaw ruubeeg di tàmbale. charge di ruubeeg di tàmbale ak ambiance. mais mais mais naan ku ngeen àndal dooy baal ku ngeen àndal dooy <laughs> moom. waaw kii yor communication bi. di organiser di orienter ak yooyu di jox ay technique ak di la conseil ci sa wàllu. communication mais sama gañee du ma mën a ñëwati ci xalaas de. lu tax. ah Matar fi garaawal problème. lu par contre nag li nga jugtee moom da nga koy bàyyi. la la la affiche campagne man ci Pape Cheikh laa ko gisee man en tant que directeur. non affiche bon man ko defar <laughs> man affiche. ci. passe laa gis ma yor campagne yu Ndoye Bane. le candidat du ah. ah. moo koy publier boppam euh, kenn laaju ko Pape Cheikh ci campagne bi amu ci benn luñ ko ci jox. ci moom de laa ko gisee. moo ko defar. kan sa image eh, sa image la bëgg a yàq maa sa image ba ma gérer li mais ma lii. <laughs> liggéey daa am kenn yónni wu ko. ah man ni ne eh, eh, affaire boobu ni ngeen ko gisee laa ko. bëgg na cee dugg kenn invité wu ko ci lii. Pape Cheikh ah, Pape Cheikh yàgg na de. ci campagne waaw kon bu moom day ruube may ruube ñoo bokk même donc da ngay jël kenn bàyyi ñaari ruube moom mooy waxuma la sax mairie Pire waaye mairie Dakar gi <laughs> mën nga koo jël. président su ñëwee Thiès na yegg Pire nag. mooy dëgg de. waaw ah, na yegg bu ñëwul pire ngeen bàyyi ko bu ah, ñëwul pire ngeen bàyyi ko na ñëw pire. ngeen génn taal ah, daal moom day. génn leen taal puna bu ñëw dañoo bëgg mu jaar programme président. waaw programme da nga jóg mu dug mu dugal mu dugal. mu dugal ko ci bokkul du xanaa campagne ak nekkatoo directeur de campagne. ah mais ci kaw dëgg la ñuy politique nag ma ak yow moom. waaw na jaar pire. mënul ñëw Thiès ñëw Tivaouane du yegg waa pire dañ ñëwul pire bàyyi ko man ma ruube <laughs> Mbaye Faye mii booy. lan la def dafa réer. depuis ba président Macky Sall faloo réer la réer. 2012. waaw la réer. kii di wax frère Mbaye Faye la. moom daal wax na wax. di wax mag la wala xale. Mbaye Faye mag la. mu nekk kan la réer. depuis 2012. la jékki-jékki dem. boo demoon ci site internet yi wala ci réseaux sociaux yi de léegi booy ne président ko réer. ayca <laughs> ayca déglu. waaw léegi moom mbay Faye la tudd dama ni moom dafa nekkoon ki nga xam ni dafa nekkoon dafa amoon jabar ca mbuur waaw nekk ak moom foofu kooku soxna si mi ngi tudd Fatou Wade waaw Fatou Wade bu déggee li may wax dina xam ni man maay wax quoi man rakku mbay Faye laa man Mbassa Faye laa tudd maa ngi cees Thiès quartier Medina Fall ci côté Don Bosco benn centre formation professionnelle bi ñuy wax Don Bosco ci pharmacie Lamp Fall donc moom waa ji bi mu nekk ak femme bi Mbour. dafa jékki-jékki mu ne ko maa ngi dem Dakar si li ñu femme bi expliqué ni dana ko dana ko damay dem Dakar maa ngi ñëw mais bu ma ñëwee dañuy dem Thiès ñu tabaski ji parce que ñoom chaque année Thiès lañ doon tabaski se grand bi mooy suñu taaw yaay ñu nag moom ñoo bokk ndey ak baay léegi nag bi mu demee nee na femme bi nee bi mu ko bàyyee mu dem Dakar mu toog di ko xaar gisuñu ko léegi ñun waa Thiès tamit bi ñu toogee ba tabaski une semaine ñu woo leen ñu ni ñoom dinañ ñëw ñu ni kon xëy na dafa am lu ñuy ñëw bi ñu leen xaare ba tabaski bi des ay trois jours ñu leen waaye yéen heure bi doon na fekk ñëw ngeen lu ngeen di xaar moom mu ni grand bi dafa doon dem Dakar ñëwagul moom lay xaar bi ñu demee nag ba jour tabaski ñu woote ñu ni ñoom du ñu mujjee ñëw tabaski parce que gisuñu grand bi ñoom fu année boobu foofu la ñu mujj tabaski ñëwul mook sama yaay boobu sama yaay mi ngi dund. léegi nag bi nga xamee ni dem nañ ba tabaski bi passé ñu contacter ñu ni ñoom ba léegi gisuñu ko ba nii ba nii ba nii ba nii may waxee ak yow grand bi kenn xamul fan la nekk musul woo ci téléphone musul yónnee message kenn musu ko woo ba jot ko mu jaaxal ñu lool bi ci des mooy moom ci jëmi boppam aussi avant muy disparaître noonu yoroon na moom euh, da ko yoroon doon ci wuyu mais avant muy disparaître fekkoon na amatul téléphone daf ko doon yore noonu doon nañu ko gis mu koy yor di ko taxañ benn si benn mais da doon wax naan bu bu ma wutee téléphone dinaa ko dugal far si moment yooyu la dem numéro boobu ñun insisté nañ ci ba sonn mais mënuñu si jot waaw ah, léegi nag euh, moom si jëmi boppam 2012 la demoon période tabaski 2012 ba léegi yaayam bi nga xam ne moo ñuy jurandoo ñun ñëpp yàlla def na décédé na en en 2017 muy 11 mai 2017 mais depuis lors kenn gisul mu def benn acte kenn gisul mu def benn effort dem nañ sax ñun ba foog ni peut dafa làqu wala détails yu demee noonu mu xaw ñu jaaxal loolu nag. ah léegi nag li ma bëgg a leeralaat nag mooy parce que man bu ma demee bay bay dugg ci yenn détails aussi damay damay jël sama ay waa damay wax mu leer ko parce que man moom am na loo xamante ni du ma ko ragal mooy nii man daal li ma si leer ba leer mooy famille bi nga xamante ni tey jii moom la takkoon seen doom ñooñu mosuñu ko bëgg. parce que tamit xeex daan nañu xeex ak moom ak ay détails yu bari rakku rakku rakku jabar ji ñoom mosuñu ko woon bëgg daal papay ndaw si aussi papay femme bi mosul bëgg waa ji. waa ji wax na ma loolu gis nga doomam am na benn doomam boo xam ne sax si doomam yi ñu fi des yaakaar naa am na ci koo xamante ne nii papa papa papay xale bu jigéen bi la ko tuddee. pour doon gën a rattaxal dëggante yi mais ñoom mosuñu woon bëgg sëy bi parce que maa ngi sama rappel très bien papa ji mos na dawal oto ñëw ba Thiès naan day jël si doomam waaw ah, ñoo na ñëw ba foofu naan day jël si doom ji waaw femme bi aussi temps woote na ñu dafa am benn bambara bu ñëw foofu genre kat yooyu daal nii kon mu ngi jugee côté Mali nee na moom mooy day nekk ci euh, oto yu mag yooyu ñu di transporter ay bagages di indi fii Sénégal di dem ak a ñëw bi mu ñëwee nee na def na Sénégal deux jours mais ñi ma àndaloon comme dañ doon wàcce ay bagages mbuur léegi nag si la laajte këram ba egg si moom parce que grand bi moom la nekkaloon doon Mali moom dañoo nekkoon ci benn genre boutique di yàpp ay bagages ñoom ñoo doon moom waa nee na grand bi yàppkat la woon foofu. léegi bi mu nekkee dañ na mënu ko mën am naa jabar bu dëkk Mbour bu tudd Fatou am na ay doom ak moom man Thiès laa dëkk di ko wax turu papaam ak turu yaayam ak yëpp nee nag jamono ay jamono ci ginnaaw nee na waa ji xaw a feebar sama mooy sama grand bi ñuy seet kii nii quoi nee na bi mu feebaree mu bind benn note ni ko kii sama jabar la explique ko yu bari bu ko feebar bi xawee sonal nag après si la si la làkku mais comme xamuñu mbokkam aussi nee na ñu daal koy enterré si dëkk bi foofu ci armée yi nekk foofu nee na bi ñu ko fa enterré quelque jours nag moom si la ñëw Mbuur Dakar lañ dem jóge fa ñëw Mbour bi ñu jógee Mbour bi ñu ñëwee ba Mbour mu ni moom daal comme que gannaaw bi ñoom ñaar ay colère la woon te waxoon na ko situation donc dina def tout ba gis jabaram jooju muy wax pour ba mën nga wax gannaaw bi seen situation la nekk. nee na waa ji mu ne waa ji yow fan nga ñëw ne ko ñëw naa fi trois jours mais damay ñëw maa ngi fanaan si benn station fii après ma dugg si benn may ga fa laa waxtaan yow di kooku moo ma tegtal kër gi ni ma fii nga dëkk. nee bi bi mu ñëwee ba toog di waxtaan ak moom ba mu yàgg sama grand bi doomam yi mu am ak moom kenn ku góor ku mag nee na grand bi bi mu ko gisee da doon jooy parce que nee na bi mu ko gisee rek sama grand bi dafa mel ni sama grand bi la gis ko am léegi nag après si la ko expliqué loolu waaw léegi nag bi mu ko expliqué loolu moom tamit ndaw si tamit nee na moom it mu jooy fa ba sonn après waa ji daal di dem ni a woo a xam dëkk boobu fan la féete nee na ko non man nag yoruma téléphone pour le moment sama téléphone bi ma yoroon dafa yàqu mais dinaa fi ñëwaat. maa ngi dem mais dinaa fi ñëwaat nee sax waxoon na ko turu dëkk ba mais moom moo fàtte turu dëkk bi mais nee ko ci Mali la léegi nag man information boobu noonu ndaw si bi muy wootee Thiès di ko wax sama rakk bu jigéen la ko wax ma lay man ko loolu mënul nekk parce que lu mel noonu nit ñëw di ko wax du fa bàyyi benn coordonnée te moom bi kooku ñëwee sax moom kooku avant bu doon génn si kër ga te moom këram googu ni ma ko déggee man musuma parce que ku ñëw joxe information boo xam ne 2012 la nit ki disparaître woon ba léegi normalement kooku war nañ ko mën a téye yóbbu ko police mu wax lu leer mais bu ñu ko bàyyee mu dem ba léegi day am loo day mel ni xel day xaw a ñaaw daal donc moo tax Mali boobu mu ñu doon jéem a wax ma gis ni peut-être loolu ay bëlëfe la. dégg nga frère Mbaye Faye mooy wax nii. ban lii jaxasoo na de. waaw nee na nee na jabaru en euh, jabaru Mbaye fay bi dafa am ku ñëw ci moom ni ko. maak mbay fay ñoo nekkandoo woon fële boori Tamba euh, dafa feebaroon faatu na fa ba ba ba suul nañ ko fa woon na waa ji ñëw ñëw ba mbuur nag di ko wër di wër ba gis ndaw si expliqué ko noonu daal di dem waa ji ne na ni loolu dafa yomb te xam ci waxi waa ji daal waa ji gëmul li ndaw si expliqué famille bi ndax ndaw si moo woo bi expliqué leen loolu. nga ne 2012. day réer waaw juróom-ñeenti waaw voilà am na ñoo xam ne euh, amoon ay doom. amoon am na ñaari doom. am na ci ñoo xam ci femme bi dafa mel dañoo xaw a soupçonné femme bi femme bi. moo tax amuñu confiance à 100 pour ci moom. moo tax ñun ñu wëri femme bi. Mhm. ah am nga femme bi. waaw. moo nekkoon jabaru. waaw Mbaye Faye mi réer. waaw femme bi informé. waa kër famille ñoom mbay Faye. ni leen expliqué na ni mu demee lépp ni mu nekkoon mbay fay ni mu doon dundee ca famille ba ba ni mbay fay demee tout mais jeeg bu yàgg ci kër di fay di sëy ci famille di sëy nañ ko moytu. waaw hmm. waaw. daa wax. non non wax na waaye la tax may wax loolu euh, dama koo xam rek. Hmm. maa ndaw si waxtaan nañ bu baax a baax a baax. lu mën a jàll. ci la ci ah, ci ak lu mënta jàll. Hmm. mais ça n'a rien à voir ak dis euh, demo euh, réeru mbay fay ki mais wax na lépp mais du lépp lañ mën a teg. lañ ci mën a teg déglu leen. ayca a xam da ngay laajte. gis nga mbay moom. barki Serigne Touba laa lay giñal. ni samay waajur defal. waa ay waajuram defaluñ ko ko mbay sama yaay mu ma fekk ba Thiès jëndal mooy moogul yor ma uh-huh. yoraale leen ñoom waa kër ga sama am na sama domb ma mujjee am sama yaay mu ma rayal xarum tudd xam nga lu waral samay famille sama papa ak euh, sama rakku papa contrôle mbay mbay da doom jëfandikoo sàngara xam nga ma la war a expliquer li ya indi woon samay waajur taxaw pour ma divorcer ak moom man nag dama koo bëggoon boon na Serigne Touba xooluma lu mu doom def ak lu mu deful dama koo bëggoon moom moom tamit bu bëgg ma torop jour bi ñuy defal sama ak moom. Uh-huh. moom day jooy man nii may jooy. ndax ñun ñaar kenn ku nekk bëggoo woon a dem bàyyi sa moroom demam sax gëm naa ni loolu ci lay jóge lii ya indi samay mbokk am ak moom relation boobu ndax da daam def bu tàqalikoog sogom da daam ñëw di indi ay too fi ma dëkk te ñun. ñu dëkk ci mbuur famille bu baax lañu bokk. waaw mais lu tax ñëw ñu ni doon doon waaj a tabaski si. moom loolu su ko waxee waxul dëgg. xañ na yaayam la dégganteel yaayam wax ko loolu seen yaay. moom moo leen doon woo di leen wax nii ak naan ndax moom problème bi moom maire bi da koo yéex a yëg. maire bi tey moom ci dëgg maa ngi ci fen. keroog uh-huh. bi mu nekkee ci sukuraat man mii la woo pour ma ñëw. Uh-huh. ak sama ñaari bant yooyu. keroog ba ma demee deux jours lañ man ak sama ñaari doom yooyu doom xaar. mu di ma baalu ak naan ma mbay nangam xale yi toppatool ma leen teel ma leen. yaayi mbay ci seen kër la nekkoon. déedéet dëkkul woon suñu kër ma yaayi mbay mi ngi dëkkoon Metfes. Mbuur la nekkoon boo ñëwee ba Mbuur Metfes fa la woon. mooy yaay kii doon wax ñoo bokk ndey ak baay. soo gisee euh, kii mbay samay waajur bëgguñu ko woon. waaw sam papa dafa xam. prendre nga affaire bi. waaw léegi nag sam papa ne nag bu démb doom tey bu xamoon ni. lii la ma may loolu du am man mii ma nekk ci du dug di daanu ma jóge ci man jël sama bagage dem Thiès nekk këñ mbay ba fay dem kenn muuruma kenn yóbbuuma ma dem nekk fa di muñ te yàlla mu wax ne sam papa dafa ñëw Thiès jël si ma mbay moo ma jàpp dóor ma ba may bëgg a dee benn maire buñ naan tànn meen ndax mu ngi dëkk foofu ca koñ ba uh-huh. kooku moo moo ne ma boo ñibbawulee di nga dee moo woo sama papa sama papa sama papa ñëw luyet cette place moo ma jël si man mii di wax ak yow. waaw inquiété gu ma ci am. ak sonn gi ma ci am. ci mu jooju ñoom ñooñu amuñu ko ci. bu ñu toogee ba tey neuf ans la affaire bi am neuf ans ci ren. waaw demee léegi na neuf uh-huh. waaw kay kon na bu ñu toogee ba tey booy wax da ngay wax lu la leer. Uh-huh. moom waru woon wax sax ni jabarom laa divorcé nañ maa moom avant muy dem. gis nga moom moom ngay gis noonu. pour ma tënkal la lu gën a gàtt seen famille. moom moo ci gën a dof moom moom seen famille moo ci gën a dof amul am xel du wax buy wax sax du wax waxul nit waxul normal sax du ko wax. Hmm. moom bi problème bi amee bañ naa ba may woo ñoom su lay ak euh, kii xadi euh, fay moom moom woowu ma ko. am ah, ñoom dañuy déggante xale yi dañ fay dem vacances dañ fay def lépp. damay déggante ñoom tout le moom mii ñu day wax nii dugg xalaat. mosuma woo du ma ligganti ba jour bi mu soxlaa information bii mu la wax tey moom moo ma woo ma leeralal ko waaji li mu wax li mu expliqué lépp waaye xadi fay moom ah. ak su lay fay moom ah. ñooñu ñoo may nemmeeku ah. ñooy xool samay doom ci lu ñu ne ñoo may liggéey waaw man man man làkkatuma mhm. nëbbatuma te defuma ci samay famille defuñu ci waaw leneen luñ ci wax rek dañuy sos wala ñu inventé dégg nga mhm. expliqué mais film nii nag nan la waa ji demee jour jour ba muy dem naka la demee déglul femme bi. damay dem daal tàggoowul daa jékki-jékki daal di dem fekk man jour boobu ma demoon sama kër yaay. bi ma ñëwee ma daal di laaj mère bi ma dëkkaloon. Mhm. mu ne moom day ñëw na fi ba sangu fi ba jël fi ab yére mais soo ñëwee ma wax la ne la dem na ma ne ko ah ne ma waaw ndax tam ñëw fi moom it jël ci ay yéreem ñaar ne ma mbay de. dafa am benn waaju mu joteeloon boobu ba tey nag gisuñu ko. rakkam jan moo la wax loolu. rakkam bu góor bu mu bokkal baay. bu tudd nan. bu tudd Bas Faye. waaw. bu tudd Bas Faye. mu ne boobu ba tey de gisuñu ko. man ne ko noo mën a àndee moom am ko mu joteel boobu ba tey waxoo dara. léegi ba jamono yii paase nii. am benn waaju fi ñëw. nee na moom bi mu ñëwee toog na ñaari fan mbuur di ma laajte. Mhm. ndaxte dañoo mosoon a toog nee na Tamba. Mhm. toogee Tamba nee na waa ji daal ne ko mbay ne mbay mbay ne ko man de mbuur dama faa amoon soxna soxna su baax waaye yàlla moo def ma ak moom ñu tàggoo. Mhm. léegi waaye fi mu toll nii mënatumaa dem fenn. est-ce que da ngeen a tàggoo nee nañu toogoon benn guddi di waxtaan moom waaj. ma ne da ngeen a tàggoo woon. waaw maa moom dañoo divorcé woon avant muy dem. dafa demoon ceef nekkoon sa seen kër. waaw. léegi nag après nag ay yërëm da ko fee bàyyi woon maa ngi woon fii Mbour. ñoom seen famille. information bu ñu am ci moom rek. Hmm. ci man la jóge waaw. ndaxte bu dëgg amee. waaw. bu dee gëstu. Hmm. man lii def naa ci lu nekk. Hmm. ndaxte damaa dafa bàyyi ay doom ak man. Uh-huh. ñaata doom. def naa am bàyyi naa man ñaari doomi góor. Uh-huh. ah man de wax dëgg yàlla xaw ma lu ko tax a dem. ah. waaw xaw ma lu ko tax a dem. waaw rakkam boobu ni la dafa am ku mu amaloon problème est-ce que bi mu demee réeré ba réer dem ngeen seeti ki mu amaloon problème. ki mu amaloon problème it moom rakkam jooju moo ko xam waaye man ñun ñi xamuñu ko tam man rakkam jooju benn magam bu tudd uh, Soulay Faye. waaw. moom la ko expliqué loon waaw. benn rakam tudd Souleye Faye. waaw moom la expliqué loon ne ko diw daa am ku mu jotee loon kooku ne ko waxoo lu leer. waxal lu leer. ndax ya boobu ba tey ñuy wër danga ñoo waroon a jox information bu leer naññ. yaa ngi dégg waaye waroo toog ba tey jii nga di ngay wax lii. fan yi paase. information boobu ñu ci am ay waxu Tamba boobu. man mii maa leen jox information boobu. waa ji ci yow la ci man ñii la ñëw Mbuur. waaw. mu ne dafa am benn guddi mu toogoon ak Mbaye Faye ca Tamba doon waxtaan ak moom. waaw. nee na mu xamal ko ni ko man Thiès laa dëkk. waaw. mais amoon naa ab soxna su dëkk Mbuur. waaw. mais maa moom dañoo divorcé waaye sama xel du jug ci moom mukk. ok. yaa ngi dégg. waaw. mi dëkk Mbuur. waaw. coose. nee na ñu denc ko fa. waaw. ma ne ko waa loolu nu mën a nekkee xanaa ndi sa génne àdduna dinañ ko photo waaw dem koo jël envoyé ko nit wala dara ma ne ko yow koo jugee mu ne ma man Tamba laa damay dama ay bagage Dakar. ma ne ko léegi yow yor nga téléphone ne ma yoruma téléphone. sama téléphone dafa yàqu. léegi man si kàttanu yàlla su ma jugee tee Dakar dinaa fi ñëw comme xam naa kër gi dinaa fi ñëw feesi la. ndax yow il ma jàppanteeg yow kóllëre waaw léegi bi ma waxee loolu. ma ne ko léegi man dinaa woo ay rakkam ñoo ngi Cees. ma ne ko léegi gis boo fi ñëwatee. waaw dina fexe yow ba nga gisanteeg ñoom. benn rakkam benn rakku mbay bu ñaan xadi fay. moom laa njëkk a woo téléphone. message vocal laa ko envoyé waxtaan ak moom. moom rakkam jooju. xamal ma ne ma lii nga wax nii dëgg la. ndax tey am na benn maara buñ demoon fan yee paase comme lii nii nga wax ni moom la ñu wax. Ah. ma woowaat tamit beneen ra mag beneen rakkam buñ naan su lay fay. waaw su lay fay ne ma loolu du dëgg. waaw mu ne ma pees la doomu aadama faatu man te génnee àdduna noonu ci ay waxi kasaw kasaw kasaw kasaw loolu amul amul du dëgg. moom mu ne ma gëmuma ko te bu ko mës a gëm te waa ji heure bu ñëwatee na nga fexe ba nit ne ko nit boobu nag laa ci a am information fa bu man nii lañ ko jëlee. ok d' accord kon daal muy dem fekk na ngeen tàggoo. fekk na maa moom ñu divorcé. xalaas. Hmm. may leen ma allo présidence trois minutes la. Hmm. dafa am benn xalaas express dafa am benn femme. Hmm. mère. boo xamante ne ji da doon sëy ak benn homme de tenue homme de tenue bi gaañu bàyyi ci moom ay fetal mu jël fetal yi yóbbu ko fa mu ko war a yóbbu ñu jël ca ñaar ne ko yii ñoo ko moom registre baa ngi. Mm-hmm. ñaar yi ci des moomuñu ko nee na tëye na arme xamul ko mu koy jox bëgg na koo joxe bëgg na arme yi génn ci loxoom te xam na ne koor bi jëkkëram doon liggéey ñoo ko joxoon arme yi moom xam na lool nañ ko dimbale bëgguñu wax nag ban corps ñoo ko joxoon arme yi ñoo ko ñoo joxoon jëkkër ji arme yi ñoo ah, ma defe ni corps bi jël na lim moom waaw mu des mu des léegi mais xam na ne ñee ñoo ko joxoon ci yenn condition lañ ko ko joxee nag il faut que ñoom ñu jéem ko rapproché moom waaw pour mu leer mm. waaw léegi ku bëgg ku dimbali femme bi noo koy def nañ woo rek ah waaw après ñun dinañ ko lijjanti dégg nga waaw mbiri fetal la soo ma tegee ci code ñu dimbali ko 77 euh, allo présidence ngir kële euh, euh, 77 numéro foo ko jëlee yow man <laughs> Bienvenue sur le répondeur de la présidence de la République. Veuillez laisser un message. Nous vous rappellerons. ah ca dëgg-dëgg di am yóbbante bu rëy boo xamante ni bu gàddanaaw constitution ñëw na ma ko waxal. réew mi ñu nekk di réewum Sénégal ndeysaan ay kilifa diine wàcc fi suñu borom defaroon ko muy xéewal a ah, ci digg-digg ay ndaanaan yu mag yoo xamante ni ay hommes d'état lañ. mu may fàttali en 1959 bi nga xamante ni ci la ci la général de Gaulle daanaka ci digg ku it non ñu bàyyi la ci constitution française ku woote wii ah ci digg ñu jox la sa sa indépendance. jamono yooyu Guinée fi woon Mali ak sunu réew du di Sénégal ah ca dëgg-dëgg ñu yore par carte yi nekkoon ci gannaaw sunu réew mi réewum teraanga la sunu réew mi réewum jàmm la ah ca dëgg-dëgg bu nga demee ba assemblée nationale ca dëgg-dëgg mel ni Dakar Arena wala mu doon mu doon arène ba nga xamante ne moo ne ci Pikine ah ca dëgg-dëgg jar naa nañu waxtaan ak population waxtaan ak goy Sénégal waxtaan ak magi Sénégal ndax ci digg-digg Sénégal yàgg naa ki jàmbaar ndeysaan mu may fàttali Lamine Koura Gueye te ma ca jàng mu réy ma may fàttali ki nga xamante ni ca digg-digg mooy Ngalandou Diouf ah ca digg-digg Mamadou Dia bañkat bu mag boobu patriote bu mag boobu ca digg-digg la mu doon patron patriote ndeysaan daka daan def ci éthique ak déontologie nee naa la réew mii ci dëgg-dëgg bu nu ko taal ndax bu nu ko taalee ci dëgg-dëgg ñun ñëpp ci bokk yam Sénégal man ñu liggéey nañ fi loo xam ni ah ca dëgg-dëgg jàmm rek moo fara xew ñoo am fula fayda honnêteté nangu liggéey ci dëgg-dëgg te bàyyi xuloo bee xeex bi ah ci dëgg-dëgg nee naa la réew mi xamewuñ ko soir réew mi xamewuñ ko coow ah ci dëgg-dëgg réew mi xamewuñ ko ay dóorante kurpeñ nee naa lañ waxtaan buñ waxtaanee ci dëgg-dëgg dinañ booloo dinañ trouver solution dinañ trouver li nga xamante ni di mooy doxal réew mi ñu respecté ndaw ñi a ah ca dëgg-dëgg man ah Mansour président communicateur temps de Sénégal daje képp koo xamante ni ci liggéey yaay communicateur ñu daal di dem assemblée nationale waxtaan ak ñoom wala sax ca dëgg-dëgg est que du ma wax gardien de la constitution mu def ma député mais mën di waxtaan ak ñoom ndax réew mi soxla nañu waxtaan. sangu mu tedd ba si Cheikh Yàlla Maktoum daal la ko wax nañ sang réew mi buñ ko ci dëgg-dëgg dara dara sang réew mi ci loolu yàlla na ci yàlla musal. ah ci dëgg-dëgg loolu a doon am répondeur ci dëgg-dëgg ne ko président jot gardien de la constitution nee ko ah ci dëgg-dëgg jàppale nañ ko nag waaye nag na bàyyi population bi xel te lépp lu ñu dara nañ ko waxtaanee ci dëgg-dëgg loolu mooy jàmmi réew